étudiants yi nga xam ne ñoo nekk Dakar dëkk Daara toog nañ depuis ba léegi subvention bi nga xam ne depuis maire Ali Salax mën naa wax ba léegi ñu koy octroyé di muy ndimbal boo xam ne day yem ci étudiants yi depuis ba léegi jotuñ ko. daaw fi nga xam ne nekkoon nañ fa du woon mairie bi mais ci ndimbalu yenn ñu ñenn borom baax yi ñoo ñu dimbale woon bañ am fenn foo xam ne defoon nañ fa étudiant mais loolu doyutoon ba nga xam ne ñenn ñi suñuy rak kaa yu leer dañu mujj bàyyi jàng ndax amuñu woon ñu nekk ndax boo xoolee ñun ñu dëkk daara dem dakaar di jàng ñu si bëri amuñ ay parents yu nekk foofu wala boog ñi ko am fi ñu ko am dafa sori dakaar mais ren ñi nga xam li gën a garaaw suñu rakk yi soog a am bac nga xam ne ñoom xamuñ dara Dakar mënuñoo lijjanti seen bopp ñun rek la ñu yaakaar di ñu woo de gauche à droite ñuy dem bu ñu demee fi ñu nga xam ne moom la ñu war a am te am na fenn foo xam ne am na étudiants yu fa jot a nekk mais fi mu toll nii comme ni ko président waxee léegi dañu menacé nañu génn appartement bi muy lu doy waar.